leen yàgg a wax ne dama leen yàgg wax ne Pro moom ak bokkam daa leer gis ngeen tek sa publication bi Amadou Ba daa leer de nekkate conseil constitutionnel valide na maanaam valide na Ousmane Sonko ba yàgg ñoom naka daal seen xiiroo ngaayoo bi ñoo wax naan Pro est invalide <coughs> ginnaaw bi ñu ko joxee quittance attestation bi moo desoon <coughs> waa léegi attestation bi ki ka joxe moo moo doon dawloo ayib yi ayib dafay xaw ma xaw ma avocat bi xaw ma la si sax di ko dawloo ba awee fi mu aw ba awee fi aw fi ba ñoom dañoo mujjee ayib la waaw dafa mujjee jël huissier pour mu defaral ka loolu même kii boobu attestation boobu moom leen boole si bagage ñu dem ñu ne duñ ko ibbi parce que waaw bi mu fayee biñ ko joxee quittance joxuñu ko attestation nan lañ kaa joxe attestation te te te saa yéen ñëwee ngeen daw ngeen nëbbutu ah dëgg kay dëggale ngeen yaakaar ne vous pouvez utiliser tout la justice si laa xamante ne ay caaxaan la laa xamante ne suñu réew mësu ka xam. dafa trop dafa ëpp nit ki da ko topp deux mille vingt et un pour jëm kaa xañ élection yi ba deux mille vingt quatre mënu laa kaa réussir il a fallu nga naan invalide parce que attestation benn simple attestation baa xamante ne ginnaaw bi ñu ko joxee quittance attestation bi du dara lu dul kiir gaa xamante ne dala prouver ne maanaam dala wane ne c'est fay na ok ngeen di ko dooloo si loolu <coughs> ba huissier defal ko kiit googu léegi leen leen bëgg moo tax du recours bi dugg na de te di ngeen ko accepté moo tax ma ne ngeen dem jëli seen carte d'identité te ngeen xam ne ne Ousmane Sonko sera candidat 2024. 21 21 yooy dem mooy nekk le 22e xanaa loogu leer na mooy nekk le 22e hmm, Ousmane Sonko waaw ñun ñoom moom li ñoom ay astaghfirullah fu ngeen moomee lu wax fa ngeen mësee gis état baa xamante den naan wala boog ak gouvernement baa xamante ne ñoom ñoo dicté lu waaw day fekk ña nekk rek ba ñu am ful neewoon naa leen li yàlla mieux de Dieu de la yàlla mieux de Dieu de barke alxuraan da di sonn seen bopp rek Sonko mu yàlla mi Ousmane mu yàlla mi élection mille vingt quatre yi ñu ne du bokk ñu dem élection moom demul wax nañ la leen waay seen invalide bi moom amul sens te pourtant presse bi yëpp a jël. wax ka ka ko dégg yaakaar naa gannaaw fekk na yow conseil conseil na def na ab liggéeyam ba ba accepté li bi wax ñu dem fa la ay naka te ña ña ña yor euh, maanaam wàllum dossier ba bokkul ak ñi nekk fële ah am na ka la leeral ka am xam-xam sax macha allah li ngeen di sonn rek de pour de incha allahu rabbi di ngeen ko bàyyi ndax ka yàlla moo ko samp sampab yàlla nag moom ab jaam simple jaam. manu si dara dem leen jëli seen carte d'identité yi ngir yàlla dem leen jëli seen carte d'identité yi Ousmane te dina gagné premier tour incha allahu rabbi dem leen jëli seen carte yi